nodd ñoo am ak ku nekk ci ngir yi nan la gisee ne noonu la ñu noddee wa kulluhum ala sawaabin wa lillahi alhamdu ñoom ñëpp ci njub lañ nekk ku ne nodd nag di nga wax liqaam liqaam mooy rakki nodd wala mooy seexa seexa ndooru nodd ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam dana wax léeg-léeg nit ñaari nodd yi waxee ñaari nodd yi rek ñu ngi ci jublu nodd ak eh, liqaam nodd ak liqaam nag mbokk yi bokk nañ ci sha'air yi gën a am solo wax naa leen wutee gi borom xam-xam am ci nodd ndax faratal ak sunna la noonee it nañ ko amee ci liqaam waaye xam nañ ne yonentu sallallahu alayhi wasallam mosu koo bàyyi e, dégg nga te amul benn borom xam-xam it bu may ndigal ci ñu bàyyi liqaam balaa ñoo e, julli donte su jaam bi julli woon te liqaamut julli ga dana wér ci li gën a siiw waaye nag bàyyi na sunna ñi ne am na bàkkaar nag bàyyi na lu mu waroon a def te defu ko nodd ak liqaam Euh, mbokk yi yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dafa tagg ñi koy def dafa réyal seen mbir wax na ne ñi gën a gudd doq yowmal qiyaamati dégg nga ñooy noddukat yi xam nga boo jaaree fenn te yoreeloo kenn dara sa doq da ngay siggi dégg nga kii noot nag dafa mel ni moom euh, ku ku ko gën a jege yërmande yàlla amul bu yowmal qiyaamati ni ko imaam nawawi rahmatullahi alayhi waxee moo tax ñoom ñoo gën a mën a sañ a yaakaar yërmande yàlla yowmal qiyaamati ba tax di ko xaar wala di ko xool euh, alay yaxlan allahu wa iyaakum min ahli aljannati wa min ahli murafaqati sayidina nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yonentu wax na ne su nit ñi xamoon yiw bu nit ñi xamoon li ci nodd ak sàpp su njëkk danañ bantale dégg nga danañ bantale pour bokk ci noddukat yi pour bokk ci ñuy taxaw ci sàppe si nga xam ne mooy sàppe su njëkk ndax yiw wu rëy nga xam ne moo ca nekk noddu ak liqaam ñaan ngoo ñaan ci seen diggante yoon salaay salaam wax na ne adduaa bayna al adaan wal iqaamati laa yuraddu ñaan diggante nodd ak liqaam yàlla du ko delloo yàlla daf koy nangu te su ko delloo yàlla daf koy nangu subhaanahu wa taala yal na yàlla nangu suñuy ñaan ñun ñëpp bu ko defee ci al madahibul arbaa danañ gis ne imam malik moom ngiram fukki baat lañ eh, gis ne ñoom la ñuy eh, liqaamee bu dee ngiru abu xanifata fukki baat ak juróom-ñaar bu dee ngiru imaam ahmad ak ngiru shafii imaam shafii rahmatullahi ala aljamii fukki baat ak benn moo luy tegtal ci loolu imaam malik rahmatullahi alayhi wax na ne amal iqaamatu fa innaha la tuthanna lu tax sayidna anas dafa wax ne yonentu salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama digal na bilaal mu tóllanti nodd tóolal liqaam xadis jàng ci buxaari muslim muslim indiwul accepté xadis jàng ci buxaari muslim te muslim indiwul accepté bi ci des mooy imaam Maalik rahmatullahi alayhi fekk na borom xam-xam yu Madina yëpp ñuy dégg nga wéetal liqaam ñuy wéet ñuy wéetal liqaam te ñooñu jëf jooju ñuy def jëf ju jokk la ba ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam du jëf ju mën a euh, def ak ijtihaad ak aql waaye jëf ju ñuy teg ci dégg nga sanat la ak riwaaya ak ak ak ak naql maanaam taw amal tawqiif yi muy nodd ak euh, liqaam dañ koy sax liaraab da nga naan allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi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 ay ah, dégg nga ashhadu an laa ilaaha illallaah ñaari yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon hayya ala salaati ñaari yoon hayya ala falaahi ñaari yoon qad qaamati salaatu ñaari yoon allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallaah muy fukki baat ak juróom-ñaar su fekkee ne eh, dégg nga xadis ji nga xam ne abu mahdara moo wax ne yonentu salallaahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam moo ko jàngal eh, dégg nga liqaam moo ko jàngal it nodd bii fukki baat ak juróom-ñaar bii fukki baat ak juróom-ñaar fukki baat ak juróom-ñaar nag du mën a nekk loolu hmm. boo waxee allahu akbar ñeenti yoon ashhadu an laa ilaaha illallah ñaari yoon ashhadu muhammadu rasulullah ñaari yoon hayya ala salaati ñaari yoon hayya ala falaahi ñaari yoon qad qaamati salaatu ñaari yoon allahu akbar allahu akbar ñaari yoon laa ilaaha illallah benn yoon bu dee ci ngiru imam ahmad ak imam Shaafi rahmatullah alayhi ñu ngi sukkandiku tamit ci xadiisu Seydina Abdullah ibnu Umar mu ne nodd ci jamono yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dañ ko doon dégg nga ñaar ñaaral bu dee liqaam ñu benn bennal ko lu dul qad qaamati salaatu gi dañ koy wax ñaari yoon moo tax ci seen ngir dangay wax allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falah qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah yii ñooy façon ngi nodd yi nga xam ne yëpp ñu ngi jógee ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam xadis yi ñu dégg leen yëpp di xadis yu am na ci lenn ci borom xam-xam yi nag ñoo xam ne dañoo euh, lëngal ngir imam malik ngir ne ku nekk ñoom am nga dalil waaye imam malik ci kaw dalil daf caa teg jëfi waa madina yi nga xam ne mënta tege ci xel waaye ci toxal lay tegee jógee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li gën a yey mooy boole boole ndax bu fekkee ne yii yëpp jógee na ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dafay wane ne ku nekk ci ñun mën naa def bu nekk ci yii boo benn leeg ni ko imam malik waxee dégg nga bu baax boo ñaar ñaarale te fukki baat ak juróom ñaar comme ni ko waa kër Abu Xanifa ci waxee mu baax waaye it boo bennalee yëpp nga xat xaamati salaatu ñaari yoon mu baax ni ko waa kër imam Shaafi ak imam Ahmad ibn Hanbal waxee hada wa sallallahu ala mawlana muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam ñuy yëgal ñëpp nag ne suñu fundraising bi muy bu Itfaa dina di def suba la ci samedi ji na ko ñëpp fekkee hada wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh